maa ngi lay fay maa ngi lay fay ami ay coo tey nga am bis boo xam ne yaa ngi koy amal tey muy sant Cheikh Abdoulaye Lahat eh, di sargal ki nga xam ne mooy sa xarit ba Mbaye Sapar Sapar di ko ñaanal yàlla xare eh, na waaye ñu wis la yombul waaw bis bi yàgg naa ko amal te demeewul nii kon bu ñu ba mu def nii rek eh, jàngat bi ma ci am mooy juum waratuma daal ah juum waratuma isaan gis nañ mi waaw loolu nag xam naa baaxuma waaye seenu mbaax moo tax waaye daal tiir naa ci leçon yi woyof bokk ci li tax loo bëgg ci réew mi nga am ko ndax xaalis moom nit ku ne mën na ko am ku xëy doon te ñaar fukk di ko am sa wërsëg la waaye xëy am ñaari nit man moo a gënal xëy am junni ndax kilifa kilifa yi fi teew kilifa bu demee ba ay ndaw di juge biir kër Sëñ Muntaxa kër ma Masamba ay ndaw di fa jóge Sëñ Gana Mesere ñëw yëkkati xéewalam jox la laaju la ñaar dërëm loo ko jox mu lànk loolu defe naa ni baax mbaax waaye oyof la dégg naa damaa oyof xam naa oyof la gis naa na ko euh, euh, mën la nga xam ne ay tiktokeur nga noo jàngate message bi waaw loolu euh, leçon la pour ñëpp leçon la pour ñuy dugg di dugal ay vidéo mais leçon la pour ñuy commentaire parce que àdduna moom malheur bi xëy sax day xëy 7 heures wàcc 4 kenn ku ci nekk li nga nekk da nga koy gëm jàpp ko ba noppi di ci am ay leçon yooyu jàngate ci ñi la ci sut bu ko defee réeroo bu dee amit day sore te itam ku am mbooloo mooy waxtaanal néew ma doo juum waaye bala ngay juum mën nay sore ndax bu fekkente ne may waxtaan ak man bi door a wax defe naa juum du yomb ndax ñun ñëpp mënuñoo maas a juum erreur yi nag bu dee am ci ci wàllu vidéo yi moo xam Instagram moo xam ci plateforme yëpp erreur bu dee am ñaare léeg-léeg actualité am kenn dëppoo téléphone am ci néegam wax erreur dugal ko bu paree bu ko rectifier fekk nit wàcc na ko dugal ko moo tax balaa nuy wax dara faaw nu di ko xalaat bu jaree nu di ci waxtaan di ci diisoo ba mu mën a génn nooru koy génne ndax ñun même bu dul dara dañoo am dëkk bi nu dëkk dafa am culture la nu dëkk Euh, Touba dëkk bi mu dëkk bi ñu nekk dafa am culture boppam ndax sañoo fee tuux mu di siiwal sañoo fee fubal di siiwal loo fiy def ci ab safaan doo ko siiwal bu siiwee ñu gënal dëkk bi te comme borom dëkk bi nag moom moom lañu yaakaar ay bëgg-bëggam ci lañ war a dox gis nañ ñu def interview sax daf ñu jafe ba ñu génn ci biti ngir mbooloo mu takk moo xam ne ñu ngi ci biir baas mooy li ma wax rek en tout cas li mooy damay sant samay dëkk samay dëkkandoo ndax bis bi bi ma commencé ba léegi xaw ma sax lu ñu togg reer barke Cheikhul Khadim lépp ñoom ñoo ko yor samay téléphone sax ñoo ko jël ngir taxawuma ci bis bi xam ne séntu nañ lii ñoom mais man nag wax dëgg yàlla séntu ma woon lii damaa dugg sangu génn rek gis mbooloo mi dañoo baax wuy si ma waaye jiwuma leen lii ñu ci bari xaw ma nu ñu kon loolu defe naa ne maa ngi sant ñi fi teew ñëpp di leen ñaanal yàlla Sëriñ Tuubaa def dara seen i pos rek juum waratuma li ma war mooy képp ku mën a doon ci àddina muy ndaw muy góor muy jigéen fu ma rombati jox la wàcc waaye dolli ca ba ma joxoon ku xewle boo ma ko waxee ma def sama kem kattan ngir ñëw ci ndax ñi ñëw a ñii ma wuy si ñëpp am na ci ñoo xam ne su ma leen rombat ay tuutànk laa leen jàppe te boo dee xool ñoo fees baas bi kon loolu ak cant la maa ngi ci kanam ñu ci ay projet incha allah bientôt lu bëree bëri euh, dana leer incha allah gis nañ ne sa bi bi ko euh, dara jëlee bis bi ak njabootam teew nañ ci ku ne soxnaam mbay Mbaye soxnaam fi lay yendu andi xéewal doomam sax ñëw na caatam mi gën a ndaw Moustapha ñëw na ñëw na ci soo ba léegi maa ngi moom ñoo nekk wax dëgg yàlla mbay moom bugguma sax di ci di ci di ci concentré parce que xam nga rek waaw am na am na fu nu toll am na nu demee su ma ci waxee rek dëgg-dëgg interview bi du du demee noonu waaw ah, li li ci ëpp solo mooy ñu ñaanal ko fa mu nekk gënal ko te ñun ñu fi bàyyi suñu borom teg ñu loxo rek ay sama yéene ci moom ma ko ci njabootam incha allah waaw maa ngi leen di kontaane di kontaane sama cameraman yëpp di wax gars yi nañu continuer di abonné di bës cloche de notification bi pour vidéo yi mën a dugal ñu mën cee jot beneen yoon yéen samay xarit ngeen li ci gën a neex mooy bawal ngeen dëkk ma dëkk bawal nu bokk Touba ak dëkk bi kon yàlla noonu sama borom sàmm aarnu bég naa ndax taxawaay bi dafa rafet am na ñoo xam ñu leen woon dañ leen fay jox leen carte ngeen door a dem ngeen ñëw ma ngoon ba léegi ndox sax leen ma ko sonal leen ma ci dara ngi lay sant yow di sant sa cameraman yëpp di